alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ok jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan ci boroom bi subhaanahu wa mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ginnaaw bi ñu jéggalante rëcc rëcc yi dox suñu digganteek suñu moroom delli di ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi di sayidul ayam muy yowmul jumaal mubaarak fa tabaarakallahu yal nañu yàlla nangul mboolem jaamu yàlla yoo xamante ne e, def nañu ko bi jaahi sayid wujud sallallahu alayhi wa sallam ni ko suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon muy sang bis yépp waaye yàllaa ko taarale bisu aljumaa waaye naka noonu itam mboolem bis yi ci des yépp yàlla la muy la ko tàmbalee ci yowmul ahad ba ci fa tabaarakallahu ba ci yowmul sulasa yowmul arbaa yowmul xamis yowmul jamaa yaani yowmul jumaa wa yowmul sabt ñu boole juróom-ñaar yooyu yépp yàlla taarale ko bisu aljuma waaye boo xoolee bisu tey bi yowmul isnayni lépp dafay dellu ci ñaar muy bu yàlla demee rekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñëw moo tax yonent bi daldi koy jago fa tabaarakallaahu yeneen yoon dinañ ci gën a indi leeral waaye di nuyu yëpp di ziyaara yëpp jël nuyoo ba yi teg ko ci loxal kilifa gi muy Cerno Xaamidu Baan fa tabaarakallaahu ci taxawaay yu am solo yi waaye rawatina itam yéene yi niserie yëpp fa tabaarakallaahu yal na yàlla mottali yëpp di jaay seydu wujud ay mbokkam yu baax ñi nga xamante ni ñoom la bokk àndal niñ koy faral di waxe rekk benn loxo mënta tàcc waaye amaana bu àndeek ñaar ba ñett ñu yëkkateendoo di doorandoo rekk yàlla mën nañu defal saadatu daaray ni yàlla nañu ko yàlla boole defal bi jaay seydul wujud muy ñi ko séqal ñépp ka ca bopp ba di ajaa ñuma ba ñu ngi koy ziyaara mu wesaaral ñu ko mboolem kuy yeewoo ci kër gi waaye tam di nuyu suñu technicien bi nga xamante ni buñ dee àddu ngeen ñiy dégg wala ñuy wax ngeen ñi gis yàlla nga ko jaarale ci moom muy Serigne Samb si di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk bu baax dolli tawfiq zahiran wa baatinan bi jaahi saydi wujud sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu la ñuy ak ziyaara itam teg ko ci loxal alxaaji ustaaz Abdallahi Njaay mu tegal ñu ko ci suñu soppe alxaaji Moussa Gueye waaye itam mu ñu ko mbooleem asaatisa boo xam ne yaa ngi yeewoo ci kër gi auditeur auditrice bàyyi wu kenn fa tabaarakallah ñu teg ko ci loxol soxna Fat Sooxa ca amoo siis moo boroom këram di mu Mouhamadou Jara ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di ziyaara Adja Ndeye Gueye ñu ngi koy ziyaara ak boroom këram naka noonu soxna Faatu Ndaw ak boroom këram di El Hadji Babacar Jaxaam ñu ngi koy ziyaara bu baax ni lañuy ziyaara itam soxna Faama Njaay ak boroom këram di El Hadji Ibrahima Mbay ñu ngi koy yokk ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk sutura zahiran wa baatinan ak xale yeeg ñëpp fa tabaarakallaahu Serigne Diop ñu ngi koy ziyaara moom itam waaye Adja Ami Thiaw ak borom këram ak xale yëpp ñu ngi leen di ziyaara noonu itam lañuy ziyaara mboolem aima yi nga xamante ne ñoo fa fiite teg ko ci imaam jonn mu wesaareel ñu ko mboolem ku fay yeewoo ci amoo cinq waaye jàpp amoo six ak quatre yëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax a baax waaye tam di ziyaara waa Sam Ndiaye ñëpp bàyyiwuñ kenn teg ko ci loxal imaam alxaaji Cheikhu Omar Ndiaye mu weesaaral ñu ko mboolem ku yeewoo Sam waaye na ko noonu itam baañ faal tam teg ko ci loxal eh, mbokk mu baax di alsaan kan fa tabaarakallahu mu wesaareel ñu ko ci mboolem ku yeewoo baañ fa tabaarakallah waaye itam daayira muxtafiina bi athaaril abaai wal ajdaad ñoom ñépp ñu ngi leen di ziyaara moo xam bu mu ci mën a doon rekk ñu ngi leen di ziyaara bu baax sëriñ lew fa tabaarakallahu alxaaji wele mu demaaleen ñu mboolem doktoor yu nekk ci biir ak asaatise yi nekk ci biir teg ko ci loxol Aliyun Sàll mu wesaareel ñu ko ci ñëpp fa tabaarakallah noonu la ñuy nuyu Asan Géy ca ak rakkam ji di Aminta Géy yal yàlla yokku saafara ilimaan saalix ndiir ak mboolem a ima ya ne ñu ngi leen di ziara waa bitim réew ñu teg ko ci alhaaji Papaloo mu tegal ñu ko ci rakkam jooju di Maodo Loo Moustapha Gange fa tabarakallahu muudu Niger muudu Gabon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara Abdel Aziz Abrabi Saoudi Papa Jaxate Mouhamadou Mansour Almaañ ñoom ñëpp fa tabarakallahu Serigne Ndiaye eh, moom itam Gabon ñu ngi koy ziyaara muudu ka fa tabarakallahu bàyyiwuñ kenn ah comme ni nga xamante ne rek noonu lañu fas yéene àndaat ak émission at tazkira fa tabaarakallaahu nga xam ne la mu ëmb rekk mooy fàttali doomu aadama bi ndax itam ci fàtte lañu ko bind comme ci fàtte lañu ko bind dana yellu saa su nekk ñu koy fàttali boppam di ko xam itam xamal moom mooy kan ci fan la jóge waaye itam ana lan moo tax ñi andi ko fii waaye bu xamee loolu itam fa nga xamante ne fa la jëm mu war faa joxe résultant bu baax boo xam ne fii la ko mën a jële kooku dafay jaadu toujours guddi ak bëccëg ñu koy fàttali moo waral bu fekkoon ne loolu rekk bu déggoon benn dégg-dégg daanaka du jar mu ciy delluwaat waaye fàtte gi muy fàtte moo waral la nga xamante ni moom la nekkoon doon farata ci moom ñi continuer di ko fàttali kon loolu dafay làmb ci doomu aadama bi fa tabaarakallah waaye tam mu koy aajowoo guddeeg bëccëg moo xam muy taw moo xam mu naaj saa su nekk rek eh, day aajowoo li ñuy tudde fàttali ndax mbër mu màgg mi nga xamante ne moom la àndal moo waral loolu te mbër moomu fa tabaarakallah du deñ di ànd ak moom guddeeg bëccëg te dara taxul muy ànd ak moom lu dul fas yéene koo yàqal mission bi nga xamante ni moo tax ñi andi ko fi waaw loolu rekk moo tax guddeeg bëccëg yàlla di àddu ci alxuraan rawatina jaarale ko ci làmmiñi suñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko del fàttali ngir kat mbër moomu nga xamante ne dafa bari doole mu fexe ba beñ koo daan donte la sax kartan gu lu néew la waaye dadul tàyyi dadul yokkatitam te mu jaral ko lu nekk yàquteg doomu aadama mu jaral ko lu nekk fa tabaarakallah kon danga jaadu ci doomu aadama bi mu góor góorlu fexe ba loolu mu bëgg ci moom muy yàqal ko mu beñ koo am muy iblis doon seytaane ni ñu ko waxe rekk nga xamante ni yàllaa ko jël génne ko ci gouvernement am waaye itam wàcce ko ci kaw àdduna mu àndandoog doomu aadam manoo seenoo wax ne bu fekk ni bu yoon sax day def ni doomu aadama di dundi nga xam ne dangay am àpp sa bisu juddu jot nga juddu waaye naka noonu sa bisu dee bu jotee dangay faatu waaye rawatina dundu doomu aadama nag gàtt lool fa tabaarakallah waaye la muy gàtt gàtt moom aw fanam dafa gudd ndax mu nga tàmbalee woon ca càppaaculi yeet suñu maam aadama di àndandoog moom ay sëtame ki sëtaatam muy àndandoog ñoom di continuer ba ñooñu ñëpp faatu nañ wuy ji seen boroom moom mu desandi di dundandi te dund googu itam noonu lay continuer ba kër bis pénc bi di jot ndax moo ko ñaanoon yàlla yàlla may ko ko ndax yàlla du fakk jëfi jàmbur te lu gàtt-gàtt liggéeyaloon na boroomam loo xamante ni daf ko toppoon ci ay sartam ya mu ko digaloon ca ba muy nekk aljana ak suñu maam xaadamaak malaaka yi nga xamante ne ñoom la bokkoon di nekkal di doxandoo seen sarwis waaye gis nga bi ko yàlla génnee ci gouvernement am nag la ne ko waaw ku liggéeyloo nit itam walla waaye ku mu ci mën a doon boo ko dàqee kay xanaa du ñàkk nga jox ko ay droit am walla ay àqam fa tabaarakallaahu nga xam ne lu mu néew néew ah am na lu mu defal boroomam muy ci kaw muy ci suuf ba wax nañ ne sax ci kaw suuf si fépp foo xamante ne jërul jëwam bi su jóotal fi boroom bi subhaanahu wa taala boo tegee sa tànk ca suuf soosa jaan dana la màtt walla jiit fitt la kon moo lay wanal ne kon fa mu sujootal boroomam lépp bari na waaye xoolal ci ak mujjantalam nag dem na ba loolu lépp mu daldi koy ñàkk ngir ak rëy rëy goo xamante ne dox na ci diggam ak boroomam waaye ak diggam ak ñi nga xamante ne moom lañ ko santoon muy aadama pour mu sujjootal ko mu daldi bañ kon liggéey yooyu nga xam ne jotoon na koo defal yàlla eh, yàlla di ko fay mu bokkoon la mu ko ñaanoon nag muy ne ko kii nga ma jëndi rekk ci misaal dama bëgg rekk nga guddal sama fan bàyyi ma feek moom mu ngi noyyi ci kaw àdduna rekk am ñuy dund rekk may àndandoog ñoom di leen fa yéene yàqal ndax bu ma teelee faatu rekk sama liggéey amaana mat naa beña baax ci ñoom ndax ñiy dundaat di judduwaat ci sama ginnaaw mooy tax duñ am ku leen yàqal yàlla may ko loolu ne ko nag demal waaye loo leen mën a not itam du tee am na ci sama jaam yoo xam ne mënoo ci ñoom dara moo tax bi ko yàlla joxe loolu mu ne ko walla dinaa taxaw ci seen yoon wi nag fexe ko aw sama ndijoor ma fél sama càmmeñ noonu sama kanam sama ginnaaw waaw yàlla ne ko am na ci ñoo xam na ñoom mënoo si ñoom dara yàlla nañu yàlla boole ci ñooñ ala kulli xaal ah, moo tax ni doomu aadama bi itam di amee njaboot kenn ku ci nekk nga am ay soxna bu dee góor walla jigéen am boroom kër dem yàlla wërsëgal la ay doom fa tabaarakallah yooyu yépp noonu la ko yàlla joxe njaboot moom iblis moom itam mu mel ni ci misaal rekk ni ñuy amee ay soxna noonu la amee soxna am ay doom walla bu fekkee man nga ko ne moom jigéen la fa tabaarakallaahu mu am jëkkër am ay doom waaw moo tax eh, ala kulli haal lu ci man di xew rek dana am njaboot tax suñu góor gu baax ga doon ko wax ne bokk na ci onk ya mu doon onk rekk ak ak njabootam woo leen yaa ummati xumilat waaw fi haadihi durratu min ahsani toomi waaw bokk na ca onk ya mu doon onk di ko bind di jooy ak la gën a mitti ca jamono jooja ba ñu am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax xam na ne mboolem lu mu teg kooku mooy dikk taxaw yàq ko lu mu taraasa lu na rek rasulullah sallallahu alayhi ñëw effacé lépp moo tax ba ñu ko ëmbee onko na ndeysaana suñu góor gu baax ga borom parisol ba ca tiwaawoon di ñu ko leeralal fa tabaarakallah ak jamono ba nga xamante ni faatihatul kitaab moom itam wàcc na nga xam ne wax nañ ni suñu xeet rasulullah sallam ku ko ci mokkal Eh, yàlla du jël yaram woowu di ko lakk waaw yaram woo xam ne dafa mokkal faatihatul kitaab yàlla nee na jomb naa jël yaram boobu di ko lakk waaw te moom dafa bëgg ñi lakk ñu dafa bëgg yaramu doomu aadama ñi lakk ko kon luy protéger lakk yaramu doomu aadama jooju bu bu wàccee dana ko metti waaw moo tax ba ba faatixa wàccee nga séen ko moom itam mu onkuwaat fa tabaarakallaa kon mu ngi noonu yooyu yëpp ay ay misaal la ci di wane ne moom toujours du xaddi waaye itam yàlla moom deñul rekk di wax rasulullah sallallahu alayhi wa rek bàyyi ko xel yaag sa njaboot waaye tam aadama bàyyi ko xel yaag sa njaboot ba kera àdduna bi di tukki comme doom yooyu muy am ak njaboot googu muy am da leen di jox mission ñoom itam kenn ku ci nekk mu am ñu mu leen partager fiitale leen ci doomu aadama yi xam nga mën nañu doon mbooloo léeg-léeg tey ñi ñu jiite sax dañuy am seen gouvernement boo xam ne ñoo koy tegal seen bopp léeg dangay dégg ministre sàngam wàll wi ñu ne diw yaay doon ministre bi taxaw di ko saytu baneen côté bee diw yow yaa ko yore di ko topp di ko topp mu doon ay pàcc pàcc yu bari comme xeeti nag dañoo jaxasoo ak xeeti jaamu yàlla yi xeet ku ci nekk ni ngay jaamoo yàlla iblis jël njabootam googu dal di leen partage séddale leen tey exemple bu ci mel ni euh, jullikat waaw jullikat am na ñoo xamante ne moom la leen fiitale waaw doom joo xamante ne nangam la tudd mais dana ko yow daal saa yu xëyee sa mission mooy lan képp ku taxaw ne allahu akbar rek fexeel moom julleem googa du mu baax bu bu ci yàlla yëg boppam moom loolu rek la ko sant waaye ci njaboot googu am na ci koo xamante nit dane ko yow moom am na lu ñuy tudde asaka yàllaa ko daganal mu doon farata ci xeetam rasulullah sallallahu alayhi wasallam fexeel ba képp koo xamante ne war ngaa génne asaka rekk bu mu ko fi génnee walla bu góor góorgóorloo ba génne ko fexeel ba bu mu ko jox ñi ñi ko war a lekk noonu la koy toppoo rek ngir rekk yàqal ko doomam boo xamante ne da koo fiitale rek mu jëm ci pour wàllu asaka waaye teewul itam am na ci doomam joo xam ne da koo jël fiitale ko ngir doomu aadama bi bu mu fi woore nga xam ne farata la ci at mu jot benn weer muy sëru ramadaanal mubaarak mu ne ko fexeel góor góorgóorlu ñoom bu ñu ko jooxe mu mat na nga ñëw di leen yàqal di leen teg ay fitna di jax-jaxal seen xel ba bu jubsee nga seen koo xam ne dara dalu ko walla feebar bu ndaw a ko dal bu jub see mu dem tàmbali di wut ay jëf joo xamante ne da koy wane ne yow waroo wor di ko wàññi la yu mel ni ki yooyu yëpp doomam jooju la ko jël fiitali ko kon kenn ku ci nekk rek bu xëyee mu ne la yow lii mooy sa mission demal nga doxe lool waaye dina am si ñoo xamante ni bu ñu bëggee dem ci doomu aadama bi fas yéene koo yàqal bu leen iblis laajee ne ko waa yow diw ci doomam yi yow fan nga jëm mu ne man de maa ngi jëm ci bërëb sàngam ci waay sàngam ndax day jëf nàngam ak nàngam mu ne ah diw ci ci diw nga jëm mu ne ko mu ne ko jëru ko ci gaa ñooñu nga jëm jëru ko ndax ñooñu dugg nañ ba pare waaw gaa ñooñu nga jëm mu ne ah, pour dem yàqal leen mu ne ko waaw Iblis ne ko jaru ko ndax ñooñu dugg nañ ci sama parti ba pare see nañ ci waaw yow kay sa mission mooy kay demaat si koo xamante ne baax na pour nga fexe yàqal ko waaye ki ñee moom bon nañ ba pare jërul ngeen dem ci moom di leen yàqal yooyu yëpp insha allahu euh, danañu ci ñëw ak doomam yooyu nga xamante ni moom la partagé kenn ku ci nekk rek mu am fu mu la fiitale yooyu yëpp insha allahu danañu ci ñëw waaye tam ak alxuraan ni mu ñu ko jàngale ngir ñi man koo xam gën koo ràññetle fa tabaarakallaahu ak ay jëfinam ay melokaanam ak naka lañ ko tudde fa tabaarakallaahu lan mooy mission lu ko tax a jug yépp insha allahu bu ñu yàlla mayee rek insha allahu danañu ci ñëw ngir man koo leeralal doomu aadama bi ba bu bëggoon a teg tànkam foofu mu jéem a góor góorlu moytandiku ko wala bu fekki ni bii juumoon na sax ba teg fa tànkam mu jéem a am ak moytandiku góor góorlu teggi tànkam foofu mu ko teg xam ne yoonu saytaane la fa tabaarakallah yooyu yépp insha allahu eh, dinañu ci ñëw tomb par tomb rek ba nga xam ne donte la mënuñoo jeexal lépp waaye danañu ci junj doomu aadama bi rek toujours mu jéem a farlu waaye gën a weg boppam fa tabaarakallaahu gën a laxasaay itam yokk ko bu baax ngir xam ne ki mu ko séqal du tàyyi du sonn te saa su nekk rek yàqal ko ci la jëm yow itam nga fexe ba moom seytaane moomu lu mu jar lu mu lu mu ko jaral rek lu ko raw na la jaral yow doomu aadama bi boo ko defee rek incha allahu yàlla mën na laa yokk dimbali waaye itam suturaal la itam fa tabaarakallah kom noonu nga xamante ne ni lay ko yàlla wàcce waaye ni la ko wàccee lu ko saafara ci biir boo demee ci biir alquran daa ko fa fekk muy aw turam di ibliis waaw man na fa wàcc fukki yoon ak benn waaye saa yu wàccee rek yàlla nga fa jël teg fa ngir doomu aadama bu bëggee ma musal ko ma musal ko ci moom muy auzu billahi min aseytaan rajim waaye musal ko ci aw ayam ak lépp loo xamante ni taxaw na pour jéem a taxaw loolu bu ko defee yooyu yépp doomu aadama bi bàyyi ci xel nga xamante ni léeg dafay sol melukaanu doomu aadama ni yow ñëw toog toogandoog yow di jëfandikoo ak yow nga xamante Euh, man nga ko jàppe ne doomu aadama fekk na boobu seytaane rajim la waaye moo sol doomu aadama bu aw melokaanam ba doomu aadama boobu di jëf comme aw jëfinam waaw doon seytaane rajim piir waaw ci doomu aadama bi kon bu ko defee yooyu yépp insha allahu dinañu ci ñëw tomb par tomb rek insha allah kon mbokk ñi junj di ñu xamal ne ah, li ñu amoon ci waxtu yi daanaka mat na kon du ñu def rek lu muy teg suñu baaraam foofu rek incha allahu di ñaan yàlla baneen yoon incha allahu ñi continuer comme ni nga xamante ne noonu lañu ko fas yéene defee incha allah te ñu junj leen koy itam noonu incha allah yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp bi jaay seydi wuju sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp auditeur auditrice bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallah comme ni ñu ko tàmbulee woon rek waaw di ziyaara bu baax itam euh, ustaz Ibrahima Ba ak waa daaira bi di ka ca jiitu di Aliyun Badara Taal nekk ca bopp ba ak euh, Serigne Khalifa Fall Serigne Ibrahima Gueye Serigne Ñaa Fall Serigne Gales Diop fa tabaarakallahu Serigne Abdullahi Busa ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara sëriñ Maysa euh, Sàmb ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn sëriñ Papa Mbaay fa tabaarakallah ahsanul xaalihin soxna Sowru Kayta ak borom këram ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax alxaaji Xasan moom itam ca Daaru Ture fii te fële ca aéroport ñu ngi koy ziyaara bu baax ak mbokkam yi ngi ko seqal yëpp alxaaji sëriñ Njaay moom itam nekk fële ca kees ñu ngi koy ziyaara moom itam fa tabarakallah yal na yàlla barkel bi jaayi saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam sëriñ omar fa tabarakallahu sëriñ Moussa Thiaw ca njóobeen ñoom it ñu ngi koy ziyaara di ko ndokkeel di ko tatagal fa tabarakallahu sëriñ coor ñu ngi koy ziyaara yal na ko yàlla yokk bu baax ba delloo si ko si njaboot géeg ñëpp di ziyaara ñëpp baalu àq ñëpp mi wax ne ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk libaas jéen wa ahiru daawaana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu